bilaay mooy baadoola sëñ Daouda yaa baadoola bilaay mooy baadoola sëñ Daouda yaay baadoola bilaay mooy baadoola ñëpp war wóoro te yaay digle koor gi fii ci koñ bi boo xëyee sa kër koor ka fay tàggoo waaye balaa bi dee nga dog koor gi yow yaay korite bàyyi ñi di ñëw te waxagoo sam papa waxu si te yaay ni di lijjanti sa bopp doo def ndànk yeey ah nga yaakaar ne adduna moom nii la di fan yi dëkk bi dafa xaw a métti trop te su papa yorugul xaalis bi yore xaalis li nga bëgg des na la ko defal dangay def sa bopp naan sama papa yorul xaalis. jaara man lu ma lijjanti sa bopp gërëfaas ah, a xotti sama daal lu xotti ba rek na cinquante fi noonu rek yow jaara. waaw ñu jaay ñëw nga. ñëw naa kay. dëkk bu tàng tàng tàng tàng dëkk bi daal. fii ñu toll nii moom xam naa ni yéeme na de. moom kay tàng lool moom def na ko moom. moo tax daal mën na laa ah, maa dimbali ci góor bi bu ma ko xasee yeew fii. ndax may jàppale ci xiif bi bu baax a baax a baax a baax. Ah. waaw dimbali na ma de. foo demoon sax yow. ci dëkk bi rek. dem ci dëkk bi rek. dem ci dëkk bi rek. loolu sax lépp sax dama kaw ko waaye yow ñi jaay yow korite gaa ngi ñëw. waaw yow loolu waxoo ko si dara. ak papa man moom mooy sama dem bi di korite gi di mooy dem bi rek lépp maa ngi lijjanti rek. mbaa ngi suuraale ginaar moom moom daa gis kër gi moom. ginaar ah. waaw léegi loo bëgg. xooñ ma xar. yéen ko si digg ëtt bii. Ah. moom laa bëgg. waaw waaw waaye ginaar moom tey moom. ah. ba pare sama caat mii nii. Hmm. soo bëgg nga xottu ko business ak borode. Hmm. waaw. Euh, mënoon ñëwal ma ko ñëw bu xam nga lu ma bëgg nga xam ko damaa bëgg nga xam ne korite du bés bu ñuy tungoom ba ca kaw a kaw gis nga korite diis na diis boo xam si ne ku koy yangu mooy lay mujj wàcce ndax bis bi àggul foofu dégg nga gis nga korite boo defee farata ji ba pare muy weer wi nga woo ko ba noppi dégg nga boo demee ba ca bisu korite ba loolu suñu borom jagleel loola ngay def la nga toll lool. yam ca gis nga xar moom ngay wax boo ko amee man nga koo rey boo ko amul te am bëy rayal bëy boo amul bëy ah ganaar boo amul ganaar te am njëgu njëgu yàpp demal nga jëndi ko boo ko amul nag wàcc ci na waaw noonu la deme waaw waaw amul leneen loo xam si ne nag tege na ci sa kaw waaw ay ges neeroog ay basi riche man nijaay man waxuma sama bopp. waaw waaye man jaar mi moo tax di wax maa ngi nii teg naa gerte faas yow sax ba nga ñëwee ba tey man li ma def daa rafetu. ma ne. Ah. ma ah. lu mu rafet rafet rafet ni nga ma attaqué tax na mënuma koo gis. yow de nijaay man man waxuma sama bopp ndax man bul man tamit di sa doom bi. waaw léegi ana sama ana xaadim. nijaay daal xaadim si biir su suba ba tey lékkut nangu na ah feebar tëdd fa ci suba ba tey. lékkut na ngeen ne fi naan ma jeex neeroo mbasee riisoo xaaf mu góoroo ah leen lu nekk ngeen di ko wax moom mais tànk jógu toogandoog yéen ci jataay bii li ngeen di wax moom mënu ma koo dégg waaw ndax xam nga yi du ngeen puuk réew moom muy tëdd fa mu tëdd ñun la ko dal yàlla ko ko teg ñun yàlla moom mënoon nag dañuy waxtaan moom mu teggi ko ko léegi su ko defee ñu mën ñu mën a wax ci wàllum ci programme yaay dama war a xaar ñu ñaar doon ko bokk jot li ma leen di wax moom wax naa leen ko yow waxtuloo sa portable ba de eh, xaari xaadim ci sama doom xaadim lu lay metti lekk nga ah xaaral ma dindil la ci lii nga lekk surange surange yi tubaab la kii surange yi tubaab la baax na ci ay ay numtudët waaw xool feebar lekk da cee baax waaye doo doo concentré rek banku fi nga banku bu ko defee sa sa sa butiti biir bi di di gën di lem loolu baaxut ci feebar da lekk da ngay lekk sa organe yi di di di ubbeeku waaw rawatina weeru koor wi noonu noonu la bismillah tournel bi tournel euh, jëppal euh, kay bismillah caxal xaadim caxal caxal caxal caxal moom waay lekkal xaadim lekkal lekkal lekkal lekkal caxal lii man naa bàyyi la kombe ci kanam bàyyi la ci kanam rek boo nee ñaar loon moo lekk benn lekkoon nga ci pom lekkoon nga ci mbaa lekkoon nga ci lekkoo ci ko hmm, ba hmm. mama seet luy benn xaarit xaaral ma xoppati la ji kii bi seexal kii kii kii moom baax na ci feebar day seeral sa yaram bi seexal waaw bu yàgg bi seexal koy baal